teranga bi rafet na dem nañ ci terrain bi def gis nañ ci lu bëri waaye li ma ci seetlu mooy ñett mbir euh, premièrement tam premièrement nañu fexe ba nit ci am pépinière boo xam ne day produire ay plantes yu doy parce que seetlu nañu plante yi dafa manqué seetlu nañ ne que population bi daa bëgg jëmbatu garab seetlu nañ ne que noonu ñoom ñoom dañ ci sawar ci seen bopp parce que fu ñu fu ñu fu ñu dem dañuy ñaan ay ay ay garab garabu garabu fourniture donc nañuy fexe ba mu nekk disponible d'abord ba nit ki moom si boppam même bu fekkee mu fekkee loxom loxom loxom loxom loxom jotul ginnaaw moom mu mun a am ay garab yu doy mu mun kaa jëmbat nit bu amul garab yu mun a jëmbat du jëmbat donc loolu il faut ñun tamit ñu taxaw ci loolu moo tax ñu jël engagement pépinière dinañ fa def pépinière ci lu gën a gaaw donc pour jàppale leen ci loolu deuxième aspect bu ñu bu ñu seetlu mooy euh, gis nañu nekk ci école yëg si lieu public yi yu si bëri dafa manqué ay garab donc moo tax action yu ñuy def tey ak démb neex na ma lool parce que ay école la ñuy jëmbat ay lieu public ak ay mairie ak yeneen yi nga xam ne mboolo bi dina si dina si di si dajaloo loolu tamit dafa dafa baax mu am ay ay ay garab donc jëmbat nañ ci ay garab yoo xam ne bu ñu màggee fii ba cinq ans six ans dina am dina am xeer bu bëri euh, troisième lu ñu seetlu tamit mooy euh, goudron yi ak routier yi ju si bëri amuñu ay garab donc loolu tamit il faut mairie yi taxaw ci pour protection bi ñun ñu jàppale leen ci ci ci gas bi ñu xam comme que jom nañu ay am nañu ay jumtukaay euh, am nañu ay garab ñu jàppale leen mais tamit arrosage bi ak suivi mairie yi tamit il faut ñu jàpp si ku nekk bu fekkee ne da nga toll ci da nga da nga da nga tali jaar sa buntu kër boo toppatoowee garab bu nekk sa buntu kër loolu dina jàppale maire bi mairie bi mais yi tamit il faut ñu jàppale ñu si protection mooy gabion yi loolu tamit maa ngi sakku ñaan maire yi ngeen ngeen xalaat yi après ñu ñëw toog waxtaan ñu xool nan nañ mën a tëralee programme boobu mu gaaw mu nu mu nu mu gën a gaawee noonu la gën a baaxee ñetteel bi dañoo seetlu tamit ñu bëri ñoo xam ne euh, seen loxo jotul seen ginnaaw pour au ñuy am mur seen seen seen kër yi euh, dañuy dem ci àll bi dagg garab gor garab yi ba pare nag ñëw def def def def mur euh, muru muru muru kii garab donc des arbres yoo xam ne dañ dañ leen dagg ci àll bi ah loolu nag gënut lu gënoon mooy nga jëmbat ay garab ñi nga xam ne garab yi bu ñu màggee foofu dinañu doon dinañu dinañu doon mur végétal looloo gën donc loolu il faut ñu bàyyi si xel nag donc ñooñu il faut ñu jàppale leen ci ay pépinière ñu jàppale leen ci ay garab yu mel ni acacia mellifera bi nga xam ne mun nga ko utiliser parce que moom la ñuy dem ci àll di gor booy dem ci àll bi nga goro garab nga ñëw nga nga ñëw pour def ko clôture fekk yow mun ngaa jëmbat garab boobu sa si mu doon clôture boo xam ne doo ko changé fii si at wala fii ñaari at clôture boo xam ne permanent looloo gën nañu jàppale nit yi ñu am ñu am ñu am garab yooyu ñu mën a ñu mën a jëmbat garab yooyu loolu dafa am solo parce que yaa ngi yaa ngi yàq àll bi ba pare nag yaa ngi yëkk yàq ressource yoo xam ne wax dëgg yàlla gënut ba pare nag boo continuer di ko def fii ba 5 ans 10 ans 3 20 ans dootoo amati supp bi ngay dal donc loolu il faut ñu il faut ñu bàyyi ci donc loolu yaakaar naa ne ñun ak waa Eaux et Forêts ak mairie yi war nañ ci war nañ ci taxaw bu baax pour mun a jàppale nit yi pour pour mën a faj seen soxla ci côté boobu boo gisee ñu koy dagg rek c'est parce que dañoo am soxla bu ñu leen utalee alternative si sox soxla boobu doo dootuñu dagg garab yooyu loolu il faut ñu bàyyi si xel.